asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp den gërëm man la Adja Ndeye Ndiaye Diouf dëkk Arafat 5 di bàjjan goxu Arafat 5 damaa ñëwoon nag tey pour waxtaan ak yéen yoo xam ne lii daf maa jaaxal daal ci dëkk bi ci affaire vaccination yi parce que man bàjjan gox laa damay ànd ak sama groupe di vacciné mais kër goo dem sama mbokki pël Fuuta yi du nangoo vacciné wu wax naa ci ba sonn dem naa def ay débat seen kër woo naa leen expliqué naa leen ba ma ak samay morom mu jaxal ma soo demee yob vaccin yi dañuy bañ naan vaccin yi bu leen ko defare bu ëllëgee sen dom yi duñu am dom ba pare jangoro ji nañu indi ko ñun luñu ko ndax polio bi fi mu ne am 15 xalé yo xamni dañu ko attraper fi ci Sénégal te polio jégué won na Sénégal yàgg na ñàkk vaccin yi ni ñak vaccin moy indi loolu fan yii dox naa ba gis xale bi am defri defteri defteri amatu fi woon ma daal ni ko yow fekk mu yaay ji daal di fab doomu taal defal ko ko ci put bi ma ni ko yow li nga defal sa doom ji la mu ne doomu taal dafa am taab ma ni ko kii taabu defteri la kii doomu taal du ko faj xale bi taab bi lekk na ci biir ba mu jeex du ma la bàyyi te wanoo ma papaam mu ànd ak man ba fa papaam di liggéey ma ma ma woo papaam ni ko danga koy yóbbu léegi hôpital wala ma ma dem police papa ci tam ni ma kay loolu du ci du ci aajo ndax danga maa dimbale ma dem ànd ak moom papa ji yóbbu ko hôpital ci saa si lañ ko jël defal ko ay pikir xotti ko taab bi soo gisee xale bi nu mel kenn mënu la ko wax xam nga métti yooyu yëpp nga koy teg sa doom te vaccin yi nekk fi ñuy waxati bu tawee ba pare dañ lay jox ay garabu saan yoo xam ne canadiens yi ñoo koy maye yu baax la bu xale bu ci ben benn garab dina tok six mois du nan garabu saan daal di def vitamine xalé xale séeréer xalé olof yëpp xalé njaago yi xalé yëpp jox dal len ko waaw ah, sama mbokki pël yi rek ndax man sama baay pël la sama mbokki pël yi ñoo bañ ñi duñu jox seen doom benn garab loolu nag gouvernement bi dañ cee war a wax taxaw ci parce que bu ñuy faj ñi ñii di indi feebar di ñu indil du metti day metti parce que ñii bu ñu defee ñii defuñu day indi problème problème boobu moo tax Sénégal feebar yi sew yi di jóg ci xale yi war nañ cee jóg nag man bàjjen gox laa am naa droit wax ko moo tax ma wax ko te ku ko weddi na nga indi sa sa glacière ñàkk suñu dugg si koñ bi ma woon la pleuvoir leer ci ñetti koñ yi ma bañ la pleuf yi reer yo xam te tey téye seen doom yi ñak lool nak nag naqari na ma bëgg ya, ci wax wa seen astim ci la jallale sama xibaar bi pour wax ko ndax man jabor la amna ay doom ba mbajj detuma waye suma sonon xalé yi juddu nek en bonne santé suñ doomi bu nekkee en bonne santé ñu indi yeneen ño xam ñi ñak di attraper ay feebar diñu ko indil lool dama koy wax man en tant que bàjjenu ko heure bi daaw def non ay dem ci ki nga xam ne mooy kilifa pël Fuuta yëpp waxtaan fa def nan ko de fële ci biir Grand Yoff mais taxul ba tey refus bi dafa am danoo bañ carrément bañ loolu état bi moo ci ñëw wax ci nag sensibiliser nañ leen def nan lu ne lépp lu nu war a def def nañ ko ci ñetti at yi ñu bañ te jàngoro yi ñu ngi gën a yokk xam nga def diphtérie bi ñëpp fàtte woon ah ak polio bi ñëpp fàtte woon bu amaatee am na lu ko indi parce que nag fii moom nit ñi léegi ñàkk nañ seen doom kii bi leen vitamine bi leen di jox rek après nawet bi ñoom dañ koy bañ pour lan loolu loolu nag état bi ñun mënuñ cee jot mais état bee ci war a wax indi ay agent yu dox ci loolu parce que ndaw réew bu nu wérul te ñoom ñëpp danoo am ay nationalité léegi dëkk fi kon léegi ñooñu ay ñu ci am na ci ñoo amee sénégalais lan bu nu wérul du baax te bu nu bu nu feebaree tam dañuy indi ñeneen feebar asalaamaaleykum wa rahmatullah